très bien Cheikh Omar sa jàngat diggante note bi ak euh, vidéo bi nga xam ni moom jéegi dal dina ko def waaw mais euh, sama yaram daw la nag Mati si <laughs> yow sa yaram daw la sama yaram daw la <laughs> maa sama benn euh, yaay moom taalibi sëñ Babacar Sy la moom boo bëggee nax sax sëñ Babacar Sy nga koy naxee muy maman Khady Gueye dëkk Amadou Assane Ndoye nit su fekkee amuloo looy reprocher sa bopp waroo am looy ragal waroo am looy tiit mm-hmm. bu fekkee ni ci liñ la dénk jàpp nga ni défaut wala jàpp nga ni dañ la tuumaal je crois que euh, amuloo dara loo ci ragal wala loo ci risqué du dëgg et que dans le cadre euh, ci liggéey boobu buñ la woowee nga wuyu bu amee ay preuve nga teg parce que jusqu'à preuve du contraire dañuy dem ci présomption d'innocence ñi nga xam ne ñoom ñoo yore l'enquête bi nag ñoom buñ la laajee après nga tontu leen maintenant sur la base de li nga leen tontu moom mooy déterminer la suite bu ñu demee nag ba ca yoon yoon bu àttee ne def nga ñu xam ni def nga bu yoon àttee ne defoo ñu xam ni defoo maintenant ce qu'il faut comprendre jéegi dafay def politique jéegi man xam naa ko jéegi <laughs> bu muy politique Sonko ak ay politique wuñu jéegi PDS la nekkoon unitaire bokkoon ci jeunes yu Saint-Louis yi euh, doon ànd ak euh, Awa Ndiaye Awa Ndiaye après par la suite au début sax doon na nekkoon na opposante parce que bi ñu jàppee Baara jéegi doon na dem si émission yi di di ko défendre parce que boobu PDS la nekkoon ensuite à un moment donné mu ànd ak euh, APR euh, jox nañ ko ci ay responsabilités comme ni ñu joxee ñeneen ay responsabilité du dëgg maintenant euh, bu fekkee nag yor nga ay responsabilités ñu gis ni ci say responsabilité jàpp nañ ni am na lu sooxe. yoon bu la woowee war na mën a mën nga dem nga wuy beneen bi euh, ci passation de service bi c'était regrettable parce que pour mm-hmm. man euh, et c'est pas service parce que état dafa am nu muy nu muy fonctionner et puis passation de service nekkul kaa ñu nuyoo waxante lu baax wala ñaanalante mais euh, IGE day ñëw saytu. ñu mën a xam gestion bi biñ la koy jox fan nga ko fekk ak fan fan fan fan la yam donc pour man foofu elle s'était pas rendu service parce que defoon na benn benn tollé et finalement mm. il a fallu ñu contraindre ko pour mu def passation de service l'autre chose que je vais vous dire euh, au niveau de la DIC di division des investigations criminelles dañu am ay compétences mm-hmm. c'est-à-dire maanaam am nañ tous les moyens ba la soxlaa mën naa jot même boo fayoon ñu lay wër munoo fexe bu duñ la loqati foo mën a nekk dañ lay loqati. kon bu fekkee ni que enquêteurs yi soit ñu woo la pour convoquer la gisuñu la wala ñu woo la jotuñu la mm. balaa ñu def quoi que ce dañuy def seen not de ser mm. de service boo xamante ni euh, recherche lay doon nga xamante ni. lii nga gis ni mandat mandat mandat mandat d'arrêt la ça veut képp ku la gis ak foo mën a nekk daf la war a interpeller bu doon na doon dem ci ay frontières moo xam da ngay jaar ci yoonu suuf moo xam da ngay jaar ci aéroport dañu war a jël say titre de voyage ne li Idi waxoon ne coppet daal di la yóbbu léegi nag comme moom lancé nañ loolu te moom mu ngi fi mu ngi kër njaay loo mais am problème waa dig bu leen neexee jaru sax ñu déplacé wu dañuy woo police bi nekk foofu à côté. bi am compétence foofu. ñooñu dem fekk ko këram jël ko et puis pour man jarul euh, débat bu sor sori maintenant quand elle sort pour génnee vidéo pour ne moom mu ngi fi nëbbatuwul làqatuwul ça veut dire qu'elle est dans territoire national. Mm-hmm. et qu'elle se situe et qu'elle est chez elle. Mm-hmm. donc elle donne rendez-vous chez elle maintenant su ma doon moom du ma xaar. ñuy ñëw di ma jël si sama kanam njaboot wala dara. Mhm. moi je me déplace j' appelle le commissaire je lui dis monsieur commissaire man ngay seet mu ne la waa nga ne ko xaar ma maa ngi ñëw nga ñëw mu jeex. donc pour man euh, jarul débat. Mhm. et puis euh, man wu ma ko jafe-jafe yéenewu ma ko kenn parce que. Euh, mu ngi nekkoon ci ay opinion ça je le respecte mais maintenant dans daan cadre de la gestion mhm. lépp loo xam ne dénk nañ ko nit ci alalu réew mi buñ la saytoo gis ni nga def ci lu deful nañ dem ci yoon waxuma nag yaa def wala defuloo ñi war a déterminer yaa def bu ñu ko déterminer am nga présomption d'innocence justice def liggéeyam comme tu tu l'as dit mu mu nekk euh, reddition des comptes et non règlement des comptes qu'on respecte les droits de tout le monde s'il est avéré qu'elle a là elle devra payer Euh, pour ses fautes s'il est avéré qu'elle très bien euh, leneen itam muy mbiru Kader nekk chroniqueur foofu ca Sen TV gis nañ euh, ginnaaw ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko foofu ci benn émission moom tey jii woolu woon nañ ko junior foofu ci cybercriminalité finalement nag ñu daal di gis ni que daal nañ ko placer en garde à vue ci ay kàddu yu mu yëkkati comme ni ma ko waxee ban lecture ngay def ci boobu le waaw lecture bi may euh, def ci kaaw Kader rek mooy euh, prise de conscience bi ñu war ñun ñi nga xam ne ñooy nekk ci média surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk au devant parce que mënoo jël ay kàddu euh, di porter atteinte à l'honorabilité euh, des personnes qui sont assermentées cest dire une institution comme la police nga ñëw mun a wax ci ci deram ay kàddu yu ni mel te amoo ci benn once de preuve parce que li muy wax laa bon on peut être là à discuter non xëy na peut-être am na ko sur WhatsApp xëy na peut-être amul preuve je vous le accusation lay def li mu def nag c'est dafa grave parce que diffamation publique la def xam nga nit mën nga tax diffamer une personne mais quand tu le fais devant un média public sa à dire ça deva charge yi dafay gën a grave cest dire parce que au-delà de de du fait que nga nga porte du tort à la personne c'est-à-dire tu dé, tu le discrédit sur tout une institution et, et je pense pas que ni mën nañ mun nañ mën nañ bàyyi mu jàll mhm. parce que tey jii nii loolu boo ko bàyyee c'est-à-dire tu ouvres la boîte au Pandore suba nit mën na taxaw parce que chaque jour nga dégg nit euh, di wax ci euh, deru Euh, ñi nga xamante ne ñooy takk der yi man je dis pas que rose hein parce que fii ci dëkk bi lañ nekk dañuy kii dañuy circuler Cheikh Omar mhm. ci tali bi nga nekk mhm. xam nga la des yi ni la mais ana visite technique bi ana lii ana laa man keroog waa ji la ma laaj triangle ak extincteur xam la ma ne ko mais grand yow <laughs> nu mu noonu mënu ma ma génne ma triangle <laughs> man am naa triangle dama koo ko extincteur ni ko ak lan mu merci xam la mais da ngay gis chaque jour pour euh, joxe rek exemple boobu nit ñi di leen wax ay kàddu yoo xam ne dafa doy waar te lu ci bëri euh, du forcément loo xam ne ni lu lu lu am la donc nag su fekkee koo xam ne dafay wax ci média moo def loolu noonu ça devient plus grave yaakaar naa ni euh, bon on lui souhaite pas yaakaar naa parce que amaana képp kuy wax mooy juum mm-hmm. li ko dal tey mun na ñaanuñu ko yàlla mais dal kenn su ñun fii donc mënuñu ko lui souhaiter du mal mais nag il faut que quand même la responsabilité euh, ñu exercer que munoo nekk parce que tey jii xëy na peut-être euh, kër gi nga nekk walla yow sa yoon bopp jàpp nga ni tu dans une voie de dissidence xëy na da nga jàpp ne yow opposition nga nekk walla ci xeex nguur walla. Euh, li nga xamante ne mooy institution yi nga xamante ne moo nekk fii actuellement nga jàpp ne tu tout est permis war nga mun a taxaw rek di yàq ngir wax ay wax yu ñaaw ak Euh, lëndëmal xelu askan ba mu jaral la nga egg fenn fi. surtout ça waaw yaakaar naa ne euh, il devra répondre ji ko ñaanal nag euh, vraiment mu mu mu oyof ci moom waaye j'espère que. la justice va s'exercer et que preuve yi nga wax xamante ne moom wax na ne am na ko parce que nee na dañ ko envoyé xaw ma audio yu mel noonu j'espère que il sera etre capable de de démontrer ça te Cheikh Omar bi nga xamante ni da koy sute souvent yaakaar naa ñi nga xamante ni ñooy dikk ak yooyu noonu seen i capacité ak seen xarañteef weesu na maanaam na la leer ni bépp message wala information boo xam ne jaar na ci sa téléphone ñoom bu fekkee lu am la ils sont capables de dénicher ça donc tey jii ni lay mënul am bu fekkee loolu am na dina ko teg ci table bu ko amul nag bon il devra humblement demander pardon et que la la loi s'exerce parce que comme on dit hein euh, dura lex sed lex j'espère bien que ça lui servira de leçon <laughs> tout à fait Mati euh, mbir mi ça sert une leçon ci yenn kàddu yoo xamante ni dañ koy dégg souvent ci euh,